léegi bi mu yeggee ndigal li fi des màggal gi rekk fi sës màggal gu mag gaa ngi màggal gi nag dafa làmboo dëkk beeg li ko wër ak waaw asalaamaaleykum kon mu mel ni ci état bi yi ñu doon barkeelu ci jëmm ju tedd si Ahmadu Ndumbe Xabaan ñoo ngi fii ci di wax daqaaru Saam Daxaar gii nag mën nañoo wax ni fi la tedd ki daan faral di jóor ay rakkaam waxoon naa leen sànq ni leen nitug dafa boole woon xaqiqa sariya ak xaqiqa mu mel ni foo ñu jóge muy dëndee fala daan liggéey ay junni junni bëri ko di ko jox ko tedd ki seewal xadim waaye bu gudd jotee ba ñëpp di dallu fii lay takk ndigam jàkkaarloog boromam di wéetal boromam ba fajar jot Dakar gi ku ko fi mës a fekk ak sa bët bu xonq bala nga fay jóge sa bët weex na nit mosu fee dugg ak aajo lu dul ni aajo ja faju na jëmm ju ne fekk na ko ci ron daqaar gi mu faj say aajo waa ju baax ju ne fekk na ko fi Cheikh Mouhamadoul Moustapha bi ma ñëw Cheikh Ousmane mi ngi koy wax wax ni fii ci ron daqaar gi Cheikh Mouhamadoul Moustapha taxaw na fi nii borom Dakar gii de lu baax ci yoon wi moom la lu fi defaru moom la kon Dakar gii bëri na ci mag ñi ñuy wax ni man de bu ma demoon ba gisatuma lenn lu bokk Cheikh Ahmadou Ndoumé Xabane su ma jëlee sama addiyee dem ba ca daqaar ga magas ba mu xóot ma ma suul ko gëm naa ne sëñ Mandoumbe jot na ci daqaar googu mooy gii daqaar goo xam ni ku fi yàgg wéetal boromam la sëriñ Ibra Xujja mi nga xam ne mooy Cheikh Mandoumbe xabbaan ci kaw suuf moo wax ma dégg ci gémmiñam mu ne Cheikh Ibra Fall jóge na nii ci booru xur Mbàkke di ñëw ñu di ko séen muy feeñaka nëbbu ndax xur moo nekk ci yoon bi ba mu yàgg mu leer na ni Cheikh Ibrahima Fall la bi mu ñëwee ba egsi ci daqaar gi ñu nuyoo mbooloo mi may leen ñu ànd taxaw ci ron daqaar gi ñu waxtaan seen waxtaanu biir ndax ñu jaxasoo woon nañ ñu bokkoon ay yéen Cheikh Ibra ne ko Ahmadou mu ne ko Mbacké mu ne ko man de am naa lu ma yéem mu ne ko lan mu ni ko seen diw mbooloo mi ni mu bëree de yéem na ma waaw lu waral loolu ma Ahmadou Ndumbe ne ko ah Ibra Fall mu ne ko Mbakke mu ne ko bu la jaaxal jënd ak may bokkun maag yow dañoo jënd te ku jënd la nga jënd yaa ko moom li ñu yor ba keroog ñuy wal boftu bi duñu teqali ko moom keppaar gi ba keroog ñuy wal boftu bi jëmm juy laxasaayu du liggéey di jox Serigne Touba du fi jug moo Cheikh Ibra dañoo jënd loolu suñu wér moom ma ko nettali ni ci daqaar gi la xëye woon kon Dakar la goo xam ni sëriñ Modou yaa ngi may wax journaliste yi li ngeen def am na solo ñëw ci waaju baax waxtaane mbiram jeqi ay jalooreem génne ko nit ñi xam ko roy ko jariñu ca liggéey bu gën a rëy boobu amul ni xob yi toll yàlla na seeni xéewal toll yàlla na suñuy xéewal toll ku fi mës a ñëw ak saafara saafara wu ku mu soob muy biir buy metti muy bopp muy lu mën a doon roccul yóbbaale di nga xam Cheikh Madoumbe mooy kan